professeur Moussa Diaw maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu ñu tàmbalee waxtaan bi ci kaw Amadou Ba en tant que chef de l'opposition euh, tey jii naka la mën a def pour génn ci politiquement. waaw euh, am na ñu ko wax tàmbal nii ni chef de l'opposition mais kooku ñu xoolaat ko parce que euh, institution yi facteurs yi ak critères yi. Euh, wanewul ni moom mooy chef de l'opposition parce que su ñu waxee chef de l'opposition mooy ko nga xam ni mooy deuxième ci assemblée nationale ak ay député kooku moom su fekkee ne euh, nekk na foofu ni moom mooy mooy yore euh, deuxième force bi à l'assemblée mën nañu wax ni moom mooy chef de l'opposition te foofu la débat di am assemblée le débat contradictoire renforcement de la démocratie foofu la amee mais nag fii nag du ñu décider nii rek nii moom mooy mooy mooy euh, mooy chef de l'opposition mais dara prouvé ko même su fekkee ni am na trente cinq pour cent élection présidentielle foofu la yem waaw mais suñu bëggee ay représentativité ci assemblée nationale lañ koy xoolee waaw euh, résultat yi foofu lañ koy xool nombre député yi nga xam ne euh, groupe wala coalition am na ko te foofu te mu nekk deuxième wala mu nekk premier foofu la ñu xoolee kan mooy euh, mooy euh, chef de l'opposition waaye dañu leen jàng ne résultat yi wala dans tous les cas euh, Amadou Ba su fekkee dafa bëgg continuer def politique il faut que mu xoolaat doxalinam il faut que mu xoolaat nu muy defee politique il faut que mu a structure yo yoo xam ne ñoo ko doon dimbali et puis nu mu ci mën a mooy mu créé man de mu ko mooy mu créé parti politique parce que parce que gis nañu élection présidentielle yi nu mu doxee ñu nekk ci biir euh, affaire ñu ci bari kenn soutenir ñu président de la république ba xam ni euh, engagé na moom moo ko taboon pour mu nekk mu nekk seen candidat euh, soutien soutien bu bu woyof la te dégg nga dañuy wax ne ay divergence profonde am si seen diggante mais loolu yëpp day wane ne difficulté bu obstacle majeur yi nga xam ne ah moom la moom la ci élection yi te jafe woon na lool mu gagné euh, loolu nag war nañ war na xoolaat yooyu et puis ma la ma gis moom daal période bi nii suñu mécanisme mooy mu créer parti dox euh, benn personnalité su ko créé xaritam yi daañu ànd ak moom ñu nekk ci affaire bëgg ànd ak moom ci beneen beneen vision beneen parti ak beneen action mais yooyu rek day mu def mu def bilan def introspection ci ni ñuy doxalee politique ci moom nu mu bëgg a engagé politique ak exigence yoo xam ne war na war war na ko moom corriger ci ñoo ci ci ci nu mu defee ak politique ci discours am ci attitude am ci comportement ci pratique politique am loolu nag su fekkee def na ko euh, ma yaakaar ne mën na am possibilité mu créer parti politique am. Hmm. Euh, daal di daal ci espace politique jouer rôle nga xam ne moom la moom la yàllool c'est en fonction ba hmm. mais bu fekkente ni APR dañu gis ni dañu bëgg a foqat ci ci moom li nga xam ne mooy statut euh, chef de l'opposition est-ce que loolu lu mën a nekk la pour jox ko keneen mu jiite APR au lieu Ba waaw mën na nekk parce que day chef de l'opposition il faut que ñu xoolaat ko moom laa doon wax léegi da ngay faral ma ba mu xam ne euh, président sortant Macky Sall Euh, diplomatique kenn appliqué wu ko avec voilà parce que bu njëkk boobu 2016 kan lañ joxoon euh, statut de de l' opposition chef de l' opposition de Idrissa Seck lañ ko joxoon ban critère lañ ko lañ ko teg tegul daal ci lu leer euh, war nañ ko xoolaat critères war nañ ko définir waat cest à la nan la ñuy mën a nekkee l' opposition na ma ko waxee noonu critères yooyu yu am solo la ñu seet ban ban résultat am ci collectivité territoriale ci assemblée nationale groupe am. Euh, député yu mu am euh, conseil yu mu am je crois que poids am boobu lu ñu war a mesurer ne moom kat ñu euh, majorité bi moom moo ci topp ñu man ko mu nga mën ko tabb mu nekk mu nekk chef de l'opposition waaye nii nag mënuñu ay xëccoo rek indi te ñeneen ñi aussi ñu bëgg mu nekk dañu bëgg ñu bëgg ñu mu nekk chef de l'opposition ci biir a APR waaw loolu mooy problème moo tax ma ni Saliou ma ngi mu ngi nekk ci mu créé parti demal boppam xeet nan lay mën a jouer un rôle important ci élection yi ñuy dëgmal c'est-à-dire élection législative mu sel mu ci am ñu mu àndal mën naa la ay député yi xam ne dañ ko permettre mu nekk numéro deux euh, euh, ci ci résultat yu ñu yu ñu obtenir comme ça ñu mën ko considérer ni moom mooy chef de l'opposition euh, aussi ñu wax ci sorti euh, Woré Sarr ci biir Parti démocratique sénégalais mbir euh, moomule ban jàngat nga ci am loolu ouvertement parce que gis ngeen parti politique yi parce que li ñuy fonctionner euh, leader yi ñu topp ku créé parti par exemple sur euh, président Abdoulaye Wade moom Abdoulaye Wade dafa euh, amoon charisme dafa amoon daraja dafa amoon discours te comme politique la bu ñu ràññee la moo tax ñu bari dañu tax dañu ànd ak moom mais bu mu créé parti yëpp ñu bari ñoo ci dugg parce que gis nañu seen bopp waaye gis nañu ne bu mu génnee pouvoir bi amatul moyen amatul ressource te la. doomam la bëggoon teg ci boppu parti bi te doomam dafa amoon difficulté judiciaire mu tax mu dem Qatar léegi nag parti politique kenn mënu ko diriger à l'extérieur kon nag à distance mënu ko diriger parce que parti politique dafa dafa dafa laaj euh, une présence permanente ngay discuter ngay waxtaan euh, ak ña fa nekk leader yi fa nekk ngay def ay animation politique ñu lay déglu ngay def campagne di wër réew mi a teg di saafantoog citoyen yi seet seen seen difficulté euh, ci noonu nga mën a d'ailleurs construire euh, euh, programme ba nga xam ne mën nga ko mais soo nekkee annexé leen di génn ay communiqué te communiqué ak waruñu ni ma kenn authentifié ko ah loolu day day day waar moo tax parti parti am problème boobu APR dana am problème boobu parce que Macky Sall nekkatu fi le président Macky Sall nekkatu fi te moo ko doon loolu mooy problème mu démocratie ci parce que euh, parti dafa laaj démocratie ñu xam kan mooy numéro un numéro deux su président bi su fekkee gagné la élection dafa war a bàyyi parti ñeneen ñu fi ci biir diriger ko ñu tànn ko nga xam ne mën na leen diriger ñu diriger ko mën ay activité mais defuñu ko comme ni ñu jëlee pouvoir bi rek monopoliser pouvoir bi noonu la ñu bëgg a monopoliser parti yi te loolu nag dafay indi ay jafe-jafe à partir du moment où amatuñu ay ressources amatuñu xaalis fonds politique yi donc marchetul te loolu fo clientélisme da daan entretenir loolu la amatuñu parce donc parti yooyu euh, day day nafa saay te leader si baax dañuy dem suñu yoon dañuy wut suñu soit ñu créé seen parti wala ñu dugg ci yeneen coalition Euh, beneen laaj aussi bu am solo kon euh, plutôt euh, sortie wu Ousmane Sonko sortie bi nga xam ne njiitu Pastef premier ministre amal na ko dem bay dànkaafu ñi nga xam ne ñoo fi yoroon réew mi mi ngi wax ni képp koo xam ne suuxal nga xaalis askan wi di nga ko goqi naka nga gisee sortie ah, boobu nga loolu moom xam na lu nekk ci na ñu fonctionner xam na pratique politique yi euh, et donc su ko see loolu am nañu muy dànkaafu te ñooñu euh, euh, am toog tuuti am difficulté ak justice te nu ñu doxalee ñu doon gérer réew donc la moom homme politique la te mooy loolu partiel te xam na lu nekk ci biir xam na propos yu mu war a tëddi te xam na aussi stratégie yi nga nekk ci ñu nekk ci kujje gi moom la doxal moo tax moom mu tënni discours boobu pour dànkaafu leen. aussi est-ce que mën nañu wax ni en tant que premier ministre war na waxee ay wax si ay poursuites judiciaires dina am alors que am nañ ministre de la justice bu si mën a wax y a aussi euh, euh, le procureur est-ce que c'est normal en tant que premier ministre muy waxee côté si euh, noonu. man la gisuma ci lu aay moom mooy premier ministre mooy coordonner action gouvernement bi euh, moo wax ci ci dossier yooyu c' est normal euh, procureur wala ministre de ci justice wax ci aussi c' est normal euh, comme moom mooy coordonner moom politique la moo tax mu soulever question yooyu wax waaye nag du ci sore parce que liggéey bi justice ñoo koy def donc magistrat yi xam ne si wala procureur yi xam ne choisir nañ leen daañu def seen liggéey mais c' est normal mu wax parce que moom mooy coordonner a bu bi. Euh, et que moom politique la c'est tout à fait normal mu mu mu préciser euh, dossiers yi wax la war a def euh, joxe ay ay ay directives ay orientations et puis ñu continuer seen liggéey ñu mën a leeral seen yoon mën la def politique ba nga xam ne moom moo tax ñu ñu élire leen. Hmm. déjà deux mois rek ñoom ñu nekk ci bopp réew mi euh, ñu ngi noté ay arrestation est-ce que mën nañ jàppee lu ni mel comme bon signe ci dëkk boo xam ne euh, dañu bëgg wàllum démocratie. oui euh, soo gisee arrestation yi mel noonu c'est ni ñoom ñu ngi soog a ñëw ci pouvoir bu ñu ñëwee ci pouvoir ñi nga xam ne mooy journaliste wala yeneen médias yi ñu daan doxale moom la ñu bëgg continuer di dëkk defal ñu derrière ñu. ñu leen di utiliser ci politique di ak di ŋàññ ak di dénigrer ak di féewale ay nit ay wax euh, loolu nag dafa war a dakk parce que dañu war a respecté déontologie mooy journaliste dañu war a respecté déontologie di respecté règle du jeu démocratique euh, c'est pas parce que ni euh, jox ñu liberté rek ba ñu war ci abusé il faut que ñu respecté règle du jeu yi ma yaakaar ni réew mi dafa am ay normes ñu war a respecté démocratie il faut règle les normes ak pensées ñu ñu respecté Euh, et puis li ñuy defee politique daanaka di saaga di ngaañ loolu dafa war a dakk waaw euh, li ñuy defee politique mooy nga réfléchir dafa ay action daal di déglu citoyen yi waxanteeg ñoom seet daal nga leen di proposer euh, et puis mën nga wax mën nga critiquer comme c'est pas c'est pas interdit su fekkee ne critique objective la ko dañ koy admettre ci démocratie mais nekk di ngaañ wala di dénigrer wala da nga wax nga xam ne waruloo ko wax ànduwul ak yoon Euh, du journaliste yow journaliste da nga war a permettre lu ñëw si sa yow sa sa nga diffuser ko parce que war nga tenir compte aussi euh, de l' euh, de société bi le fonctionnement de l' information da war a vérifier war nga ko diffuser wala waruloo ko diffuser war a xalaat parce que jàng ko loolu mooy métier nga respecter règle de jeu ñu ban nekk nga utiliser politiquement. parce que média yu bari di leen di leen créer ay hommes politiques la nekk ci ginnaaw di leen manipuler di leen gis ñu sax ñuy wax di di ŋàññ di saaga di tuumal ay nit ay hommes politiques la nekk ci ginnaaw parce que ñun ay ay financement yu leen jox yooyu yëpp moo dafa war a dakk parce que réew mi dañ ko war a leer yoon bi dafa war a leer règle du jeu bi dafa ñu ko war a respecté te nag loolu nag mooy état bu ñu bu organiser démocratie mën a sax mën a dëgër ñu nañu nekkee ni ñu doxee politique pratique politique yi nga xam ne nga xam ni ma euh, ngi saaga ko yooyu foog dafa war a dakk waaw il faut que ñu respecté règle yooyu kon xam ne nag respecté woo ko et yoon dana daan si sa kaw man loolu laa gis ci fonctionnement euh, espace politique bu léegi xam ne am na liberté ñu fi ñëw ñi xam nañu seen trajectoire xam ni ay jafe-jafe yu ñu amoon parce que démocratie kenn respecté wu ko règle kenn respecté wu léegi nag loolu moom la ñu bëgg a samp démocratie bi taxaw réew mi jëm kanam ñu mën a liggéey euh, ñëpp ñu ci seen hmm. dernière question professeur euh, naka nga gisee assises yi nga xam ne organise nañ ko pour euh, une réforme de la justice naka nga gisee lu ni mel. assises yi loolu lu am solo la parce que d'ailleurs ñoom promettre seen ci seen programme réforme bu solo la parce que justice il faut que ñu réformer ko parce que nu mu noonu dafa amoon dysfonctionnement yu bare. dafa am ay ay obstacle bari te ay ay dérive yoo xam ne war nañ ko corriger euh, ma yaakaar ne nag se yu am solo la ci démocratie ñu tëral euh, ay commission yuy réflexe yi nga xam dañuy waxtaan seet seen bi saytu fonctionnement justice seet la nga xam ne euh, dafa sooxe ñu ñu ñu ñu gëm corriger daal di daal dëgëral justice dëgëral démocratie dëgëral état de droit citoyen ñu protéger leen je pense que loolu am solo la te réflexion yi waroon nañ ko def bu yàgg te mënul la yem ci réflexion yi parce que gisoon nañu euh, ay période ñu génne ay ñu def ay assises euh, assises nationales wala ñu gis CDR yi def benn rapport euh, rapport yi kenn utilisé ko dañ ko def ci tiroir yi dañ ci dañu ci ci li neex nag lii ma yaakaar ne yooyu ñu defoon war nañ ci se ñu ci utiliser ay am ay ay éléments yoo xam ne am importance la ay waxtaan ak ay réflexion yu am solo la ñu jël ko boole ko ak li ñuy def euh, mu xam ne lu dëgër lay doon ñu ñu tëral ko euh, réew mi sukkandiku ñu mën ci man ci dox doxalee euh, réew mi justice bi mën a dox ci dem ci kanam démocratie fonctionner ak état de droit je pense que loolu am solo la ci réew mi ñu bëggee ñu jëm kanam Hmm. merci beaucoup professeur Moussa Diaw ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. jërëjëf euh, ñuy fàttali ne professeur Moussa Diaw enseignant chercheur nga ca université bu Saint-Louis merci encore.